sëriñ bi ñoo ngi ziare tey nag euh, ma bëgg ñu waxtaanee li nga xam ne mooy jinjeer ngir njariñ lu mu làmboo jinjeer bari ay vitamine lool bari njariñ lool ci doomu aadama waaye am ñu mu doon danse ci ñoom moo tax waxtaane gi itam dina ci am solo jinjeer am na li nga xamante moom lañuy wax potassium am li nga xamante ni moom la ñuy wax magnésium am na li ñuy wax li nga xamante ni moom lañuy ñuy wax silicium am na li nga xamante ni moom la ñuy wax calcium am li nga xamante moom la ñuy wax fer jinjeer carminatif la ba tey antioxydant bu am njariñ la euh, njariñam bokk na ci tamit moom jinjeer dana leeral ay bët moom jinjeer nag am na vitamine A bu am solo baax na ci tension bi yéeg kon ki am bi wàcc na ko moytu ko gis na foofu kon ki am tension bi wàcc na ko moytu ko gis nga ko euh, ndax bari na koo xam ne da gis ne bu wooree ba ngoon jot da ngay gis ne dina jëfandikoo jinjeer lu baree bare bare bare kon bi yéeg waxuñu ko waaye bi wàcc na ko moytu ko moom ki nga xam ne dafa amee tension bi wàcc beneen tuuti danse bi mooy ki nga xam ne dafa war a defe ji opération na ko bàyyi lu mat waxtu soo ko def opération bi ak bu opéré bu pare tamit na ko moytu na ko feeg waxtu lu tax day señeloo da koy señeloo baax na ci ñi am ngelawul biir moom jinjeer ki koy jëfandikoo ngelaw li nekk ci biir bi day daal deñ ndax bari na ñoo xam ne bu nekkee ci wanag euh, li ñuy génne lu ci ëpp ngelaw lay doon kon jinjeer mii nekkee baax na ci lool ba tey jinjeer baax na ci ñi am kolopati baax na ci lool day génne itam li nga xamante bi mooy toxite ci biir yaramu doomu aadama bu ne toxite nag mooy poison rek ba tey moom jinjeer boo koy jël doo am are cardiaque jinjeer nag boo amee pëndax bi nga bañ fer ñeent dem def ko ci weer ndax am nga moom lay jariñe bu dee pëndax dafa gaaw a dem daa gaaw a naaw moo tax lu ëpp ci ñi koy jël doom bi moo gën nga defal ko sa bopp dëbb ko baxal ndox sotti ca segg di ko naan looloo gën waaye pëndax bi moom soo xamul kañ leen ko dëbb ak leen ko dencee bari na loo xam ne da ko ciy jëfandikoo waaye doo ci gis dara waaye ñoom ñaatam kenn du leen boole di leen baxalaale moom jimjeer ji ak ndox mi dangay ngay waxal ndox sotti ko ca noonu la su koy jëfandikoo lees koy boole nag dis na ko booleeg meew bu la neexee dis na ko booleek lem tam bu la neexee moom tam ba tey jinjeer dina raxas pomo ci doomu aadama ay pomo yu salte pomo yoo xam ne dafa tilim ndax pomo yu salté tamit mën na indi danse ci doomu aadama waaye tamit jinjeer baax na ci deret ju way rawatina nag ki amee ndigg luy metti ndigg luy metti jinjeer lu ci baax la lu ci am solo la jinjeer day faj ballonnement day faj ballonnement bu baax a baax baax jinjeer boo ko dee jëfandikoo tam siddit yooyu nga xam ne dafa dem bal ba ba ba bay waaj a kebaloo boo ko dee jëfandikoo da koy yàq da koy maanaam yaatal ba ca waroon a jaar lépp dana daal jaar te du am benn muskila du am benn jafe-jafe ndax bari waa nag koo xamante bi sidditam dafa tàmbalee xat xataay ba nag salteeg deret la wala ay ay ay jafe-jafe waaye bu ko fekkee day jëfandikoo jinjeer nag da ngay gis ne siddit na fan tolloon ci yaatuwaay foofee la ko daal di yóbbuwaat. day régler tàng tey tàngoor tàngooru yaram jinjeer da koy régler tàngooru yaram bi da koy régler ba tey lu baax la ci wàllu góor ki koy jëfandikoo tam baax na lool ci koo xamante da ngaa bëgg li nga xamante mooy xuwatul sàkkar dooley góor waaw jigéen ñi nga xam dañoo amee régal dulóoru régal maanaam euh, régal bi nga xamante bi nit ki buy ñëw fu nekk dina fa fëgg bopp bi ngir lan ngir mettuwaay lekk jinjeer baax na ci lool da koy faj ak bopp buy metti waaw am na ñoo xam ni bopp dëkkaal la ñu yor waaye bopp boobu tam jinjeer bi baax na ci koy faj bu baax a baax baax ak ñi nga xamante bi maanaam maanaam euh, dañoo am maanaam lu mel ni dangar lu mel ni xeetu comme matti matti yooyu ngay gis noonu kiy ñaan kiy naan di njeer mathématique yooyu du ko def dara waaw ba tey jinjeer dina génne li nga xamante ni mooy stress surtout ki nga xam ne dafa gaaw a mer nga xam ne lu ñu wax rek mer daf koy daal dikkal xam nga tam ah, bariwaa na ñu koy tuumaal xeetu rabak la ci ajo waaye tamit mer am na leneen lu koy def lu bokkut ak ay rabak yooyu kon jinjeer mii dana génne gaaw a mer ak ki nga xam ne day fàtte dina ñëw tam ci métitu biir moom jinjeer baax na lool ci miti du biir moo xam bu góor bi la moo xam bu jigéen bi ñi nga xamante ni dañuy am cancer jinjeer bi baax na ko da koy freiné waaw da koy freiné baax na ci lool ki amee góomu biir ñi amee cancer yaa xam na cancer bi lu mu mën doon waaw ñi amee asthme boo xam ne day dem ba àgg ci crise jinjeer bi da koy faj waaw ak jur gi nga xamante bi dañ leen rendi yàpp yi tooke nekk ci biir yaa ngi dégg tooke nekk ci biir kiy jëfandikoo jinjeer yàlla mën na ko musal ci loola ndax bari na fi doon jur goo xamante bi dina rëcc ba am lu nekk ci ñoom ci loo xam ne poson lay doon yaa ngi dégg mu mel ne comme pikiir boo xamante bi dat ba jeexagut ñu rend ko ki koy jëfandikoo bu jëfandikoo jinjeer rek yàlla mën na ko musal ci tooke tooke yooyu yi nga xam dafa nekk jur gi waaw ak ay sëqat sëqat yu métti yooyu ba tey jinjeer da koy faj day faj loolu baax a baax a baax ki amee cancer ne su dee jëfandikoo jinjeer moom da koy freiné freiné gi mooy maanaam dutu jàllati fam xas yam rek foofu lay yem kon ñi nga xamante ni dañoo am problème mu reesal baax na ci lool kon loolu lañ leen indi loon ci li nga xam ne mooy jinjeer jëfandikaay bi nag comme li ma leen wax ci mujjantal bi rek duñ jël. jinjeer ak ndox di ko boole di ko baxal waaye tout temps ndox mooy bax fekk ji jinjeer ba tey doom boobu tamit mënees na ko raxas noonu tam yëy yëy ci lu yam rek suba yëy ci midi yëy ci ngoon bu fekkee ne wóoroo boo wooree nag boo dogee bu la neexee nga dagg ci yëy boo reeree nga daggaat yëy loolu tam gis na ko jëfandikoo noonu comme ci lii nga xamante ni moom nga ci bëgg a faju comme lii ñu wax nii kon jinjeer mi ngi noonu mbokk yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu